jërë ngeen jëf mbokk ñi siiwur ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm di ñaanal réew mi Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm tey nag ñu dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté suñu kër gi mu di people 221 di Cheikh Ahmed Cissé borom Andala Buri fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ginnaaw bi mu demee aji ji woon ñu ngi koy siyaar bu baax a baax Cheikh bi dañu lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. maa ngi lay fay di nuyu waa people 221 ak ñi nga xam ne dañ leen wóolu di taataan ay xibaar ak mbégte ci site bi di wan ne ne liñ mën a dimbale site bi mooy abonné wu. Mhm. ak di commentaire ndax muy nekk ci kanam di nuyu yàlla ci boppam ci jëmmam ju sell ji di nuyu yonent yàlla Muhammad mii ma jàkkaar lool di nuyu Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu di nuyu Baye Niass di nuyu Cheikh Omar Touré imam Cheikh suma yaay suma baay di nuyu képp ku ma bokkal mbokk mbokk rekk la amul firi képp ku ma bokkal nuyu naa la. di nuyu sumay soppe di ñaan yàlla mi xam te mën yàlla na ma daggal gàtt suma bépp noonu. képp ku ma bañ rek yàlla bul kontaan yàlla na nga feebar te doo mën a faju yàlla na nga am soxla doo ko mën a faj yàlla na la ñàkk gañe ñàkk goo xam ne bu ñëwee day dëkk yàlla na nga ñàkk jom ñàkk xel ñàkk xol bu rafet ñàkk jàmm képp ku ma yéenewul jàmm rek laa ñaanal ñaan gi waaye ñu ma yéene jàmm moom yàlla neen ko am ndax tàng maqaama la am na koo xam ne ku ko tooñ mu baal la mhm. kooku respectel naa ko tolluwaayam am na koo xam ne ku ko tooñ mu fayu waaye man ku ma tooñ ci yàlla lay daw làqu ñaan ko moom mii sa buur mu jëflante ak yow fa laa toll. Mhm. jërëjëf. d'accord am na solo fi may njëkkee euh, muy nga demoon euh, aji ji vraiment mu nekk loo xam ne lu nit ñi rafetlu la aussi bi nga demee sa aj boobu noonu lan nga ci jàngee ak naka nga naka ko ko jàngatee. umra laa demoon bokk na ci la ma ca jàng bi ma demee ci armel yi mhm. fekk ñëpp tabaxuñ benn armel waaye am ñoo xam ne seen armeel moo gën a yaatu ma ne jagle daal ku bëgg a tollale nit ñi borom jagle yi dina feeñ. am na ñoo xam ne armeel yu tuuti la am ñu yaatule li tax ñu yaatule loolu jagle la euh, beneen ba ma ca jàngee mooy bi ma demee Touba dama gis Baye Fall di def tànki neen ma ne naa leen roy ma summi suma dàll yi ci jumaa yu yonantu waaye naaj bi bi ma lakkee ba ni ma ñëwee suma tànk dafa lakk. Mm-hmm. ma xalaat jàng ci ne. nit looy woote woon na doon dëgg ci yow. Mhm. c'est pas kii day def rek dangay def loolu jàng naa ko ci. ndax su fekkoon ne la Baye Fall xool ci sëñ Touba ba def tànk nañ ci dëkkam bi mu ngi woon ci man du ma yëg tàngaay. Mhm. waaye nekkul ci man dama ne damay roy nit. ci loo xam ne gëm-gëm ak mahabba la ko defee su ma tànk yi dafa lakk. Mhm. mu métti torop ba moom moomu mujjee may daa abal daal. Ah, loolu jàng naa ko beneen bi. seede naa it ne man ku bëgg yàlla la ndax liggéey ba am million yi ma def suma yoon bi hôtel Raffles laa dëkk si suite présidentielle jàkkaarloo Kaaba gi damay taxaw suma hôtel di julli. Medina ilton laa dal te ku yàlla bind muy mbokk muy xarit defoo ci dërëm. man kenn rekk la ci suma àndalaa buri be suma doy waar jàngeen naa ci ne bëgg naa yàlla ndax bu ma neexoon dem Dubaay. seet jongama bu taaru ànd ak moom def li ma saf ñëw. Mhm. mun naa dem Turquie mun naa dem fu ne mais Murtani laa dem ziare ki njëkk a indi tarixa tijaan ci ñun nit ñu ñuul. Hmm. muy cheikh Mahmadul Hafiz. Hmm. jugee fa ziare cheikhu tijaan yi dem ziare yonantu wër Kaaba gi tawaaf ñëwaat ci cheikhu tijaan yi ñëpp Sénégal loolu daf ma dëggalal ne man bëgg naa yàlla ndax maa moom suma bopp yàlla bi ma bindee sant may daf maa may liberté hmm. mais alal jooju ma dugal ci mënoon naa ko def feneen. le fait que ma def ko foofu te jaayiwu ànd àndalaa le fait que ma def ko foofu te mayewu ma ko fuy joxe bës mooy na yàlla yonontu bi rek laa bëgg loolu maa ngi ciy ndokkeel suma bopp. Mhm. di sant yàlla mi ma ko may beneen jàngat bi mooy lu bëri dafa ma daan dama ko daan rêvé dafa am suma benn mag suñu àndaan ci ascenseur bi di bës di dem neuvième étage pour dem këram dama daan proud of him waaye bi ma demee Màkka la loolu jeex ci man. ndaxte duusi Màkka yi mooy réewu këru waa Sénégal te dangay dugg ci lift ascenseur pour dem douche. Mhm. donc ascenseur réyatul ci man. Mhm. kër gu rafet yéemeetul ci man xemematuma ko. Mhm. moo tax ñaan yàlla baax dafa am ñaan gu may ñaan daf naan yaa rabbi wa yaa saydi wa yaa mawlaaya wa yaa gaayata raxbati yow yàlla yow suma borom yow ki ma moom yaay suma daytu daytaluwaayal xememteef maanaam lu ma bëgg rek yaa ma gënal. bi ma duggee màkka di dem ci douche bi ma gis fi ngay wàccee machine la ñaata kër fi am machine buy tax doo dox dugg ci kër gi. ci Sénégal néew na nañ tabaxee marbet yi nañ ko defaree xaalis boobu rek tabax na kër gi gën a rafet suñ kër. suñ dëkk donc dara rëyatul ci man màkka la loolu jeexee ci man. d'accord maanaam amoon naa dayoob kenn rëyul ci man nu waay mel rek dama naan baax na mais dara rëyatul ci man loolu màkka la ma dalee. bi may dem ci douche bi ma gis douche bi muy suñu reef ñun ma ne non non man dara rëyatul ci man. loolu tawféex boobu màkk laa ko amee donc yii daal bokk na ci yu ma ci jàngat. d'accord beneen bi mooy gëm naa ne it ku dem màkk ak dina sa gëm yàlla yokk ak koo mën a doon. Mm-hmm. waaw sa bëgg yàlla dina yokk ma jàngee ca it ne ci laa gën a dëggalee bàyyi laay man. ndax soo demee ci xunt yi ci xeer yi dem màkk amul différence dafa mel ni benn xeer la man maa fa dem. Mhm. ci laa gën a dëggal ma ne bàyyi laay mii de man xaw ma ko waaye man gëm naa li muy woote. Mhm. xam nga mën ngaa xam ba pare doo gëm mën ngaa xam gëm man xaw ma waaye gëm naa ko ndax dama dem Makka dem Medina dem ci xeer yi dem fi Hamza tëdd xool environnement bi xool Yoof xool Ngor xool jàmmalaay xool lépp suma xaatir bi suma xol bi dëggal ne benn la. su ma gis-gis bi wuutewut ma gëm ko te sukkandiku ci barkeem yàlla nangul ma suma aj te am naa ay preuve ne yàlla suma umra am naa preuve ne yàlla nangul na ma. d'accord hmm. Ameth kan moo war a umra parce que dañu gis ni umra daanaka at mii nii Sénégal euh, dañuy gis nañ ci ay musiciens gis nañ ci ay mbër ku nekk ngi dem di umra euh, umra ci yan condition nga koy defee ak kan moo ko war a def. umra sunna la jullit bi def bàkkaar moo war a def umra ngir yàlla jéggal ko bàkkaaram yi te may ko yool jullit bi am tiyaabo moo war a dem umra ngir sant yàlla gën a yokk kon ku warta dem kenn ñëppay dem mbër mi mbër la ci méccam àddina loolu nafsiya bi la waaye ki dem ngir ziyaara ji yonantu ci kaaba ga kooku du mbër kooku jullit bi la musicien bi téye mikorom di wéy ci kii ba dafay bégal bakkanam ngir mbiru àdduna waaye su demee ba oddu ba wër tawaaf musicien demul waaye jullit bi moo dem ngir sant yàlla ak mëttali sunnaam loolu man rafetlu rek laa ko def. d'accord mais tey ni ñu xamee mbër wala waykat ñëpp jàpp ni pomo mu ñu nekk du pomo xamante ne l'islam ànd na ci bu ñu demee umra ñu bari yaakaar ne aussi tamit bu ñëwee dañu war a changer nekk ci li nga xamante ni mooy lu neex yàlla mais dañuy ñëwaat di bëriwaat wala ñëwaat di woyaat naka nga jàngatee loolu. ah waaw waaw wa at bahi sayyi'atal hasanata def lu ñaaw ba pare teg ci lu baax. boo musique itam ba da ciy tooñ di ci fay ba pare wax demal umra na def lu baax Sénégal ñoo xamul diine mun a décourager nit ci diine. da ngay njaalo sax julli ñu ne waroo julli yow yaa ngi topp jigéen mais topp jigéen bàkkaar la benn la lu baax fukk la nan leen lay encourager ci lu bon ba pare ne bul def lu baax man Cheikh Ahmed képp kuy volé demal màkk alaya bi dem leen màkk musiciens yi dem leen màkk mbër yi dem leen. kaaba gi dawul bàkkaaru kenn yonent bi du delloo gan ndax ku baax moo la gën te Touba gi ku fa demoon nuyu sëñ Muntaxa mu fay la ku dem mu dalal la jox la nga lekk jox la nga naan ñaanal la te boo amul sens mu may la oto may la paas sëñ Muntaxa nag sangam du sëñ tuubaa de njaboote sëñ Touba gi ñooy sangam sëñ Touba mooy seen sang sëñ Touba jaami yonent bi la su sëñ Muntaxa mii mën a amee ngor googu naka yonent bi dem leen baril màkka tànk bëri mbaax rek ak bëgg yàlla bëgg la benn ràkk ngay julli fukki junne boo fa julee weer ñaata la te laay benn jaamu yàlla guñ nangu rek yàlla xool la bëtu ngërmande doo dem safar. charia mu ne même booy njaaloog jigéen na ko muural sa bopp bi lu baax amut fu mu mën a bonee. mais Sénégal ñooy ñëw naan xanaa kii moo nekk Màkka nekk naa Màkka di live di jaay suma garab ñu ne ma rusal barab bu sell ma ne leen imaam yi Màkka bi am na jabar te julliwut ba jabar ji am doom xam neen fi mu jaar fi ñu jaar rek la jaara mhm. donc nit la la. màkka ñu ngi fay takk sëy ñu ngi fay suku-suku aaya luy problème bi waxtaan ci sëy mënta bon waaye nag mën ngaa rafetal kàddu yu ormal ko mais Sénégal boo rafetalee sa foog ñu jabolise imaam yi màkka bi du vierge wax dëgg yàlla du vierge de am na doom te du alxuraanam gu neex googu moo ko may doom du julli fukki rakk yi ñaar moo ko may doom la ca kawlal baag soxna si moo ko may doom donc c'est humain luy problème bi nga ne yow nit ki mu ngi màkk warta waxtaan ci sëy te yonantu alquran wàcc ci màkk ci moom ci sëy muy àtte dogal yi di def loolu réeree diine la mais naa feq la man bi ma demee ba ci kaaba gi nee naa ko yow yàlla yàlla nag ma yokk cafka gën ma dëgëral gën ma yokkal taay bi guddaay bi ba jigéen bu ma dajal nga bég wax naa ko yàlla parce que yonantu moo ne ñaan leen ba ñaan seen xorom yi cin xorom bu seen jabar diñ duggee cin ñaan ko fii jamono toll stress beeg lekk bi nga wër kaaba gi te laajoo kàttan bu baax foo jëm ñaan naa ko yàlla ci kaaba gi ñaan ko ci raw du yonent bi yàlla bu bu ma taxale ko suma kattanal góor feeg maa ngi dund am na ñu dund ba mu yàgg mën lu ne dañuy raay yéene mënatuñ ci dara dañuy raay rek tàpp ngeen tëdd ñu tëdd mënuñ ci dara man bëggumaa yegg foofu te yàlla laa koy ñaan jullit saa yu amee occasion na ñaan yàlla kon ñii wax naan mbër yi waruñoo dem umra wala da ngay dem umra bàyyi làmb dañoo ñaan man su ma doon mbër balaa may bëree dem ci yonent bi balaa may bëree wër kaaba gi ñaan yàlla am ndam ñëw bëree dem am ndam. bëree lan la quoi. d'accord mais foofu noonu ñu gis ni tey bàkkaar nga def ko dem jéggalu ñëwaat defaat ko est-ce que loolu tamit du indi problème loolu lan la ci lislaam maa ngi ci musoon a am waxtaan ak oustaz Mohamed mbay seen TV mais Sénégal dañuy déglu te duñ déglu wax man dama ne mënul wér. ne boo defee bàkkaar jéggalu defaat yàlla day jël sa bàkkaar bu njëkk bi jox la ko yàlla du nit yàlla jéggal na jaam ba ne ko fu mu nekk nii xam nga lan la li des sa dund defal lu la neex lépp lu ma xaraamal boo ko defee neex na ma mhm. yàlla amul yar amul kilifa loolu dama bëgg nit ñi xam ko yar mooy limite Cheikh Ahmad kat waruma ko wax lii yàlla amul loolu lu ko neex nim ko neexee la koy defee kooku sañ naa jéggal nit bàkkaar waaye yërmande yàlla bokkut ci nit na la baal ma dem laalante. Hmm. nga baal ko mu laalante waat nga ne ko bu njëkk ba ma la baaloon kon yàlla day fenta inna wa'dallaahi haqqun hmm. neen di def bàkkaar kenn du ko encourage waaye ku def bàkkaar jéggalul yàlla saa yoo jéggaloo yàlla seedeel ne dootoo ca delluwaat amal yéene jéggalu ko bu la rëcc rëcc dalaatee yàlla ko bu buur bu yaatu la te tey saa su nekk mu ngi tàllal loxoom bi rek ci yërmande jëm ci yow. waaye yàlla noonu la mel yàlla du nit de saa su nekk rek mu ngi tàllal loxo yërmande jàmm moo tax seytaane mu ne moom yaakaar na yërmande yàlla ndax moo ko ëpp te yàlla moom lu ko neex lay def loolu du dëgg. borom xam-xam bu ko wax da ngaa juum ci xam-xam ne soo jéggaloo yàlla defaat kon ñun ñëpp bàkkaar la ñuy def di amul ku répété wul bàkkaar ci ñun amul amul ku dul xëy suba ba ngoon doo def lu wàññi sa pas-pas ku sa pas-pas dëggu nga fanaane ko yàlla la wërsëgal loolu moo tax saa yoo jàppee dëggalal sa pas-pas ngay julli dëggalaat ko di nga ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah waa léegi ashhadu an laa ilaha illallah boobu noonu waxoon nga ko gëm nga ko moo la dugal ci loo ko waxaate parce que pas-pasu ngëm yàlla moo sew mën na dagg saa su ne te ku daggale doo ko yëg fekk demul ba tôt ou tard doo yëg na yoo sa pas-pas dagg na d' accord léegi eh, ñi nga xam ne ñoo am xaalis euh, bañ a dem umra yow mi nga xam ne jot nga faa dem lan nga leen di wax. ah seen choix la ah. ñoom ñoom la neex seen affaire la um, umra xam nga du farat kum neex nga dem kum neex doo dem mais man de fooguma ne li des suma dund dinaa toog ñaari weer daw ma màkk de <coughs> te su ma dematee ñaari fan rek laa fay am bés bu ma wàcc bés bu ñibbi dem gérer yu noonu tu wër kaaba gi dem ñibbi. Mm-hmm. waaw su ma ko sañee de su ma ñaari weer daal mënu ma ko génn te dew ma mag su ma ko sañoon nag at bu nekk ñeenti yoon wala juróomi yoon. Mhm. d'accord ñu gis ni aussi tamit bi nga demee daan nañu seetaan yaa ngi koy wax léegi ci say live daan nga wax yenn kàddu yi euh, tey bi nga ñëwee Sénégal euh, est-ce que tey kàddu yooyu nga doon wax benn avant di jaay di wax ci wàllu awra. ak nga dem ba jàkkaarloog yonent bi est-ce que kàddu yooyu noonu doo ko xaw a wormaal tuuti sax wala xaw ko sàng parce que ku xool Ahmed danaan non demoon na Màkka te ku dem Màkka dafa am benn bët bi ñu lay xoolee ñun Sénégal. waa parce que dafa am lu ci yow en parce que dañu dañu <clears throat> dañu xamul diine en fait man ci biir rawdu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawasul naa ci yonent bi mu yokk ma bànneex suma ngóora man <laughs> sérieusement. loolu ñor na bi nga demee Màkka góor laa te dama xam àddina. bi nga su paasee gëm yàlla. aw ma lu mooy poos bu duuf ak koy bu baax. kese te man tuxuma naanuma sàccuma fenuma benn problème laa muy pax bu ndaw bi. bëgg naa nag raakool bi dëgër ndax muy mën a dugg ci pax bi. waa loolu sañu ma koo ñaan yàlla ba pare naan su may ànd la waa ji dafa ñëw bàyyi gëléemam gis yonantu na ko yonantu na ko lale mu ne ko bàyyi naa ko yàlla mu ne ko yeew ko ba pare bàyyi ko yàlla man nag damay ñaan ba pare naan àndale di entraîné di lekk lu baax. aw ma problème boobu ndax ci biir Kaaba gi ci ci ci bi may wër Kaaba gi wax naa loolu bi may tawasul ci yonantu wax naa loolu bi ma demee ci saxaaba yi bi ma demee Baqi ci saxaaba yi bi ma demee ci Hamza bi ma demee Jabalu Nuur fépp fu ma dem ñaan naa ko yàlla. te damay wirde ismullahil azam ak fatiha bi niyati ismil azam di ko ñaan yàlla. moo tax man suma jabar yi den ma naan da neex dama ko ñaan ba yàlla nangul ma ko man damaa ñaan neex. koy ñaan yàlla damay ñaan neex dee leen ñaan neex su ma taalibe yi dee leen tàllal naan ko yow yàlla yàlla nag ma yokk neex ma saf ba yàlla nag ma ko may daf la koy may. xanaa xamoo yow yonent yàlla yusufa neexoon na neex goo xam ne bu xoolee bu taxawee rek jigéen xool ko rek dootoo amati sa wala qad hammat bihi wa hamma biha alquran la yusufa moo ko waral loolu neex la du taar nit rafet na te kenn du la xemem nit ñaaw tañ xemem la neex dafa am taar am jantal am boo am cas am comme yàlla natoon na ma ñaaw nag yi si desib la am dama boo dama jantal dama am cas dama neex man su may jabar ñoo ko wax te man xam naa ko man maay sëriñ neex waaw <laughs> ah, sëriñ bi gën a neex neex maa ngi nii ba pare di toqal ci xol yi neex neex. d' am na solo ah mu nekkoon ay leeral yoo xam ne dinañ ko di ci dem bi nga dem fee nii di Makka yal na sunu borom nangu lépp loo fa ñaan. amiin euh, ñaan googu nga ñaan neex googu yal nañ ci yàlla boole waale ñun ñi nga xam dañ lay déglu. amiin waaw euh, taalibe yi foog ngeen neex parce que sëriñ bi moo neex. d' accord tey nag lu bari xew na sa ginnaaw. muy affaire manifestation yi nga xam ne jotoon na fee am euh, bi nga ñëwee tamit nga gis loolu noonu ban jàngat nga am ci manifestation yi ak bakkan yi nga xam ne jot na fi ron. Euh, la ma waxoon rek laay wax man bàyyi naa politique fas éneetuma far fenn yàlla nag mën naa def ma far fenn ndax nit moomul boppam. Mm-hmm. mais fii ma toll man askan bi laa faral. deuxième mais première su ma bopp laa faral su ma àndalaa buri bi suma ma doy waar teg ci askan wi man su ma bopp ma gënal wi. Mm-hmm. suma njaay mi moo ma gënal njaay keneen ndax moo yor suma dépense moo may amee li fi xew nag askan wi laa bëgg ñu bàyyi xel na su jamono demee ba Tata Mimi Touré di dugg avion di dem Ziguinchor ne day jàppal tànk Ousmane sonk Barthélémy Dias toog Dakar yow mi may seetaan war ngaa xam sa bopp su demee ba ay bakkan mën a rot te mosu leen a fàttale ko fu ñu dajalee journée ngir ñaanal ña ca dee. mosu leen a fàttaliku ketal neen kolo ko capitaine Touré ketal neen Guy Marius Sagna pour oto. ndax mos ngaa gis ñu ket dajale benn cent millions seddale ko ñi nga xam ne ñoo doon jaay ay soccu ak café di dimbale seen yaay ak seen baay. te ñu dee ci xeex bi su amee tam gisuma ko man. wa ma shahidna illaa bi ma alim na li ma xam rek laay wax léegi nag yow yaa ngi gëm dara nga koy xeex ma di ko xeex nga génn ci àddina gisuma fuñ dajee ñaanal la yaa doon soutien de famille gisuma fuñ fayalee sa yaay luwaaye gisuma fu mu feebaree ñu enterré ko am na ñu nekk ci kaso ga bu ñu lekkee seen mbokk leen ko yóbbee ku ci amul tur duñ la duñ taf sa foto ne libéré diw parce amoo tur léegi nag comme yow amoo tur sa juddu rëyul comme ni ko Sénégal xamee amoo alal da ngay xam sa bopp xam sa bopp mooy yaa moom sa carte sañ nga faral ku la neex xaaral ba élection si ngoon nga lekk ba suur naan ba màndi wooteel ku la neex ñëw toog xaar résultat mais ñi ci kaso gi dañu bëri Ablaay mhm. Pape Ndiaye mi nekkoon Walf la ñuy taf naan ko libéré diw suñuy lim da nga daan dégg ñu naan Abdou Karim Xurunqa Papito karaa nangam ñu siiw rek la ñuy tudd mais am nañu ñu xamul den leen gaañ ba pare yóbbu leen kaso tëj leen ñu nekk ak feebar ak méttit kan moo leen di taxawu avocat sax mënuñ koo jël léegi nag yow nga bokk ci askan gis loolu beneen ba ca des bëgg Ousmane Sonko seen rien à ak taal réew mi gëm politique gu Ousmane Sonko nga bëgg gëm ko ne mooy jël réew mi boo lakkee yàq su ñëwee du du liggéey day defaraat. kon yaa ngi tardel Sénégal Ousmane Sonko noobul la jullit xàqan la man ci li ma gëm loolu it sañ naa ko moo tax ma dem ba ci Kaaba ga ñaanal ko yàlla may ko jàmm te suturaal ko man duma ko votel comprendre mais nit bu ngeen bokkee réew ngay kilifa muy kilifa am ñu ko bëgg dangay ngay séq ak moom jàmm moom bu dul moom sax ñi topp ci ginnaawam te Sonko bu jëloon lim moom ci réew mi réew mi jeex de <laughs> wala liy des du bari kooku danga nga koy respecté yonentu mu ne ku jiite fukki nit jox ko cër respect boobu laa am envers lui Ousmane sonk boobu musul saaga man dégguma ko musul wax lu ñaaw dégguma ko musul génnee safara di lakk man gisuma ko su amee tam gisuma ko Sonko boobu nan ngay waxee ne moom nga bëgg moom nga gëm di lakk sa réew xubbul watana min al imaani la yonentu wax sallallahu alayhi wa sallam bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk bokk na ci bëgg sa réew nag def fa wax fa luñ la dul xeebee waaye danga mer li askan wi yëpp war a jëfandikoo nga taal ko nga toj ko ngir ne da nga mer sa mber mi giif nga yàqal sa réew budget yàq expert yi luñ xalaat ba pare tardel sa réew kon képp kuy yàq di toj bul ko tuumal Pastef bul ko tuumal Ousmane Sonko jëlal sa responsabilité sa xamadi bopp jëlal sa responsabilité saaga sa yaay kane sa yaay moom lim sëy du ministre bu ñuy déglu du imam buy jiite du jàngalkati alxuraan mais mooy kuy toj réew mi xasal sa yaay yow kenn mu concerné la yaw kon man li may wax du jëm ci politiciens yi du jëm ci Macky Sall du jëm ci Ousmane Sonko dafay jëm ci askan wi Macky duggul tata Amadou Sall dugul tata Ousmane Sonko ak jabaram ak njabootam yéen a ngi gis Ousmane Sonko oto 4x4 bu ñu kilim la duggee woon ne neen may doomam mu jàngi. waa man doomi néew ju doole bi war a dugg ci biisu maa mer taal pour lan beneen ba ca des ñi bëgg makki sàlla dañoo sonn ci bu problème amee ñu tëju seen néeg di estati naan on on est on avec le président président bu jantal yaa fi ne. commencé fii tàkkut fële tàkkut réew mi am na jàmm am na jàmm mais yow ñemewoo génn <laughs> am na jàmm yaa ngi toog sa néeg di estati loolu du dëgg ñi bëgg Macky Sall la da ngeen koy bëgg wala ngeen bañ ko. mais bëggantu ak ragal bi moo fi des te ma wax la dara Ablaye billaahi allazi laa ilaha illa huwa am na ñu nekk ci justice bi di xeex Macky Sall hmm. waaw waxuma justice bi de am na ñu nekk ci biir système justice Sénégal dossier secret yëpp ñoo koy jox wujjiw nguur gi képp ku bëgg Macky Sall la ñun dañ la homme d'affaires yi leen gën a sondal di la am na ñu nekk impôt den koy def di la teg ay fiscal yu métti est que xam nga ne Cheikh Kacha jox neen ko fiscal plus de trois milliards xam nga lu ndaw si wax. Mm-hmm. diwa ko moom te diw ci nguur gi la nekk. Cheikh Kacha Cheikh Kacha pour wan la ne bépp organe bépp organisation bu nekk ci réew mi am na ñu fa nekk di xeex nguur gi ngay liggéeyal te mu solal la te di la fay salaire. Mm-hmm. nga foog ne Macky Sall la nga ko def. surtout yonent bi biñ na jabaram posone ko ñëw ma takk la may la xaalis mu posone ko waaye daf ko ne du ma la takk. ndax ni ma la fayee bu la ko keneen fayee nga posé na sa jëkkër. Mm-hmm. innaam nit la ko jox mu dem. Mm-hmm. mais bu doon man dama lay rey xam ne yow wóoroo pour nga dund. Mm-hmm. am na ñu nekk ci justice bi xam nga lan la ñuy xaar kuy supporter Macky Sall nga nekk influenceur wala dara booy am problème ñu rëq sa ndigg pour frustrer loola boo paree mere nguur gi. Macky du ko yëg noonu leen nekkee fiscal tey boo doon dimbale Macky Sall dañuy ñëw rek dóor la ay affaire naa la nangam. billaahi wallaahi tallaahi néew ma benn justice néew ma benn nangam mais loolu dafa am am na ci bépp koor kenn mucc ci nag moo tax bis bu email yi bis bu message supprimé yi ñëwaatee bis bu conversation secret yi génnee nga xam ne senegal bëri na baadoo waaye bëri na jàmm d'accord nga xam ne Sénégal bëri nañu gore di kon ñi bëgg Ousmane Sonko jarul ñu taal ñi bëgg Macky la neen génn ci yuñ ne est-ce xam nga ne am na ay ministres yu ut statut pour asile ci réewu européen ak Amérique ñëpp a ngi jéem a lijjanti seen doom yi ñu am kayit yow yaa ngi xaccoo nguur ngay gëmloo nit ki ne je suis faible te xam naa ne dañuy daanu ñu bëri bëgguñoo jël engagement ci Macky Sall parce que gëm ne dafay daanu. mais gor mooy ngay ànd ak nit mu leer la ne day daanu nga dem ànd ak moom man de suma ma mbër njaaytin bu ma leeroon na day daanu ma taxaw ci kanamam ñu ànd daanu su ma mbër soq bu ma leeroon na day daanu ma ànd moom ñu daanu ama balde bu ma leeroon na day daanu ma ànd moom ñu daanu loolooy ànd ànd du pour mu neex mais su naqaree nga war a xam kan mooy gor donc réew mi ni mu demee nii dama cee tiit tiit bi mooy ñu ànd ak Macky Sall dafa bëri ay naa feq bëri foo type bëri ñu mën a nettali secret d'état ay Bara Ndiaye benn Baara Ndiaye men bés bu ma toogoon ak moom plateau àdduna ba ko maa ko gën a ñëw xel ëpp ko xam-xam foofu du benn bokku ñu mais ñi koy jox yenn ci information ñu ngi ci nguur gi toog Baara tëddul gént lu mooy lekk bu neex nit la comme tout le monde yenn saa yi sax nelaw day naafi la nit la ngénte na bu yàggul def gis yi taxul mu ngénte fi ma jaar la jaar comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen information yi ñuy am pour nguur gi la. ci nguur gi lay jógee donc nen arrêté loolu te xam ne defuñ ko Macky Sall Pape Alé Niang li mu publier woon te mu doon menace ci sécurité Sénégal ci bokk na ci réew mi ëpp sécurité ci Afrique muy Sénégal ku ko jox document armée bi dafa nelaw yeewu nii rek gis ko c'est pas vrai fii lay waxee lii laay wax. ñu gis analyse bi nga def am na solo donte concerné wul sax ki nga xamante ni moo di sa xarit di kalifon nekkoon na ci nguur gi euh, ba yàlla duma di jógee na fi sax mais ba tey mu ngi wax jëmale ko ci nguur gi ñu gis bi manifestation yi amee dañu ñëw euh, koñam ba këram sax attaqué ko naka nga jàngatee loolu. man de yëguma ko waaye maa ngi solidarité ak suma xarit ndax fii lu mën a xew ku bàyyi sa xarit nit jàpp xaritam maa ngi koy masawu mbaa daw na kay ni ma dawee woon. dégg naa tëjal bunt bi de. <laughs> ah na tëj buntu bi de bu buñ ko jàppee torojo morojo ko de man de ci oto ba ca kaw puus-puus bi laa jaar suma 4 x bi. booy yi dañu sadik de booy yi amuñ maslaa affaire bi nii dañ lay rey nga dee na daw kali dawal dawal dugg tëj bunt bi jàmm rek am mais moom fa la daan toog de naan su ma kii ku bëgg sa bakkan xeexut. Eh, pël bi ruux na <laughs> su ma tukulóor bi foog ma gis ko laaj ko nu mu demee. mais yëguma ko woon mais je tout cœur avec suma xarit man a yàlla na am jàmm. d' accord mu mel ni tamit am na loo xam ne xew na sa ginnaaw muy audience bi nga xamante ni mbëri amoon nañ ko ñu bari xaw ko ñaawlu parce que nee nañ tension dëkk bi fi mu toll ak politique bi fi mu toll nit ñi di dee manifestation yi est ce que tey yaadu woon na tey président recevoir mbëri yi ñu nekk biir palais di bàkku di fa tëgg est ce que tey jii ñu bari sénégalais xaw a ñaawlu lool naka nga jàngatee mais lu coow li bari bari ñu ngi. tamit diversion. lu coow li bari tamit ñu ngi invité homme d'affaires te waxuñ ci dara lu coow di bari bari politiciens ñu ngi waaj a dajee waxtaan te waxuñ ci dara mbër moo naqari ci réew mi boo entraîné jof sa galaaj bañ daan la ñu sosal la. yaa doon laal kii yaa takk fii yaa nangam xoolal Ada Fass jabar ak ñu xeex fa mbër moo métti. waa doon mbër dafa métti yow ak sa bëgg-bëgg doon mbër rek dafa métti. yeewu mbër métti waat parce que làmb du yëfi gor. da ngay toog ak nit wax ko sa secret mu ngi lay arrêté jaay ko sa adversaire am na ci làmb da ngay wóolu nit mu indi gàllaaj sa kër am na ci làmb mbër lañuy dund président war leen a dalal ku ci wax rek da ngaa mbër nu muy dundee man de bëgguma doonu mbër yàlla nattu na ma nag am naay mbër mais man moom yëfi mbër yërmande rek laa am ci ñoom parce que li ñu dund dafa métti Ablaye mbër yu bari seen siddiit yi bàyyi na. parce que niñ leen di takkee moo métti néew na mbër mu mënta naan garab mën a laal sa jabar parce que nit rek nga juróom-ñeenti pax a nekk sa jëmm ji xaatim bu ne ñu dugal la ah imagine loxo moo gën a dëgër awra ñu takk la ba mënoo nii mënoo nii waaye loolu du fa bàyyi awra waay awra ba day dee ak ni ñuy takkee seen ngemb yi dafay gêner sidditi nga war a ngemb 9 heures de temps kañ ngay ngemb dix heures ci suba ba neuf ci guddi fukki waxtu ñaar yaa ngi takk sa ngemb gi dem na nag ba gëstu ne da ngay sërëxal pour soo waree saw rek rocci bagage yi saw nice weesu dugalaat loolu moom xam naa ko parce que dama daan xalaat mbër yi fu ñuy demee toilette ak fu ñuy sawee parce que temps bi ñu koy takk ñu ne ma boo gisee ñu wër leen ñu sukkandoo la ñu ngi saw pour yër yërmande ak consideration bi ma am ci mbër léegi nag président dalal leen ñuy doomi réew mi. créer ay emploi yàgg laa bégal sawaroo ci ngay nangam sénégalais moo bëgg contre sénégalais mooy xëy dara xewut xam nga jàmm am na. mu ne non mais dëkk bi wéet na ko quoi amul ruube quoi moom moo bëgg jàmbat mais mbër yi xam nga <laughs> mbër moom faalewut loolu mbër yi mu mel ni tamit am na loo xam ne xew na barki démb yaa ngi koy tudd léegi mu di Ada di sunu frère ñu koy ñaanal yàlla sunu borom génnee ko ci lii mu nekk ñu gis benn natt boo xam ne dal na ko mu di jàpp bi nga xam ne dañ ko jàpp ñu dégg ci ay version yu bari ñi naan affaire moto la ñi naan affaire d'agression ba jokkoon nañ ci sax ki nga xamante ni mooy soxnaam moo di ñu ci ay leeral naka nga jàngatee euh, en tant que Ada nekk xale coow lii teel a am ba pare ak natt yi nga xam ne moo koy dal aussi tamit ci xale. bu ko bu ko ñemee rek dafa baax. waaye bu ko ragalee baaxut. Mm-hmm. waaw mais cest parce que cat la rek ah. Mm-hmm. du lu aay. Mm-hmm. cat la te coow ci mbër non dafa baax da nga koy utiliser Ablaye situation bu mus a teew suma kanam génn naa ci. bañ ma jàppee dóor ma na xam nga dóor yi am na photo neen ko vidéo neen ko film neen ko tasaare neen ko dama koy utiliser su ma noppi woon rasu rek mu gaañ ma psychologiquement mais dama taxaw affronter ko gën ci ami soppe ma mbir doxee ca Kalifone bi muy ñëw suma kër présenté wu ko Adja Thiaré ñoo jëlante numéro coow li na kur ñu naan këram la auberge la dama utiliser loolu bu ma taalee live ñëpp ñëw ma jaay sumay garab ci coow boobu noonu laa njëkk a jaayee 2 millions benn bés. parce que yàq der bi am na ba pare coow li am na présenté wu ma leen lu ne ñu ma koy def dama koy utiliser. bañ ma tëjee ci kaso gi tam ci biir kaso gi laa ko toggaatee génn utiliser suma moment prison gën a yokk gën a dem ci kaw ci kanam Ada Fass na utiliser li fii naqar amul fi nattu amu fi ça dépend lan la li ngay tuddee nattu ci sëñ Touba moo ko may li am képp ku yàlla mos a yónni jànkuwante nga ak liñ tuddee nattu di ko muñ ba dajeeg may yi nga war a am kon coow lii Ada am na ko utiliser positivement mais bu mu fi nekk di feebal di gëm den maa catu den maa liggéey dugg naa nii nanga nga man su nattu amee damay toog ne teg xalaat ban conséquence la am ban risque la am ma tegee risque na le teg conséquence teg naqar seet man lu ma ci mën a jëriñoo ma jëriñu ci naqar boobu moo tax Baye Niass mu ne bu jàmm bi xamoon yàlla dëgg naqar bu teewee day muñ di ree waaye su xamee yàlla bu bànneex amee dafay ragal di tiit ndax xamul fu bànneex bi mën a jeexee man situation bu ñëw ma utiliser ko Ablaye parce que dama dama dama yàlla dafa ma may xel may ma xol may ma ruuxu def ma nit ma am ay kilifa di seetaan di jàng di roy kon Ada Fass lii natt bi dal ko takk jabar mu def bës mais génnal ak sa jabar dem Dubaay ngeen snap zonge ñu saaga leen mu gën a baax day yokk sa jom jabar ne man kat kii bi ma koy sëyal ñu saaga ma daf ma yóbboon Dubaay teral ma dama koy sëyal de mais dalay yokk jom dem nga prison en tant que mbër mais nekkal ci biir prison bi ut fa ay fans man prison la suma fans yi bare parce que falaa nekkoon moo doon suma endroit aw ma feneen ma utiliser moment bi bi ma génnee dóor mu daanu donc li dal Ada Fass ni man j'aime at dalaloon fii mu di Cheikh Ahmed Cissé borom àndalaa buri nekk ku disponible ci ñun wax dëgg yàlla bi ñëwee tey nag sama sërite man man duun na maa ngi ko esati ku nekk naan ma sërite bi sërite bi vraiment di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm tey sa mot de la fin ci émission bi. suma mot de la fin mooy euh, xam nga jaaykati garab yëpp ñibbi neen. Hmm. ñi léegi socc la ñuy jaay ñi dem nañ quoi parce que suma garab bi tudd doy waar di jar 15000 poudre bi moo leen rey bañ dee. àndalaa bëri moom kenn mënu koo compétir ak moom mais dafa am ñu may wax ñu ne atoote laay simmi solal ko àndalaa bëri atoote ki koy defar Vieux Ouattara la tudd mu ngi dëkk dëkk bu ñu naan Korogo ci biir Côte d'Ivoire 1000 mm-hmm. francs lay jaayee atoote su ñëwee Abidjan 1500 ñu koy jaayee Sénégal 10 000 waa nan ngay gisee 10 000 gis 25 000 bàyyi jënd 25 te nga moom sa xaalis. ku naan atoote naan àndala xam ne cin bokkul cafin diggante Ghana Cameroun Côte d'Ivoire Bénin dafa am société chinoise bu fay liggéey bouteille yu mel noonu garab yi day diis boo ko defee ci bouteille Evian da koy nottal mais mag yow nit leen ça ne veut pas dire que benn lañu te ñoom neen jaay seen jaay tabama bu ma leen jugalee campagne atoote dootul jar ndax ministre de de la santé bu Côte d'Ivoire kayit gi mu génnee ci atoote gis naa ko. attardé dafa am effet secondaire yu bon ñi koy naan laay waxal day indi migraine day mel ni sa bopp bi lay xar insuffisance rénale bu bon la lay jox soo ko naanee da ngay saw rek. beneen ba ca des soo naanee atoote gis nga bullux bi am ngelaw fii nga xam ne mooy tax nga giix atoote boo ko naanee doo giix boo koy naan xam nga sa bullux bi dafa war di yéeg sooy nokki sooy wàcc nii mu wàcc sooy lekk mu yëngatu atoote da koy diisal naankati atoote bu lekk nii buy lekk bu naanu ndox du dem. garab gi baaxul yéen a koy jaay ma noppi seen dix mille francs parce que wërsëgu waay kenn mënu koo jël mais buñ dof dofloo na yàlla nattu leen bañ dugg suma garab yi ne dañuy wax man bu ma jugalee àndalaa buri dinaa leen fay ni yeneen sëriñ yi jaaroon ci man sëriñ bu mus a jaar ci man wala nga ma fay naa la tëddu ñoom dama leen di fay ndax dama xam ci atooti lu bari man mbirum awra dafa ma ñor ñaar fukki réew ak ñeent laa dem di ko wër gis naa atoote 1000 francs lay jar 1 million 1000 atoote ngay am soo ko jaayee lu tax jaayuma ko parce que dafa am effet secondaire bu bon bu bona bona bona bona bon la am te ñu ngi wax da ngay dem sax keneen na la man may jaay Cheikh Ahmed ku ma mus jaay man atoote te nga dëkk ci réew mi waneel facture wala numéro wala nga wane preuve ne yaa ma jaay amul su ma àndalaa buri bi daf leen di të mais nag léegi banaa yooyu yëpp sax bii laa am. bii bii soq mbër laa ko tuddee. soq man mbër. waaw ko tuddee. benn bu ma ci jaay moo ci moom mille francs ngir dimbale ko ci ay kombaam ndax moo ñëw ba ci man na ma dama laa bëgg. Mm-hmm. te man ku ma bëgg. Mm-hmm. ma bëgg la ku ma jàpp ma jàpp la ku ma fonk ma fonk la. Mm-hmm. bii mooy soq bii ñetti yoon nga koy naan ci semaine bi par guddi waaye gis nga bii boo dajalee àndalaa buri dajale doy waar dajale lépp moo leen mën cinquante mille lay jar limited edition la mille rek laa ci defar bu jeexee jeex na. mooy soq. bii mooy soq soq leneen la. d'accord leneen la. d'accord Ablaye soq mi xam nga gaaw a daanoog jabeteem benn nga aar ko ba bu mu ñëw waaye su ñëwee calmer rek nga ci mën mais bii lépp lu àndalaa mën yéen ñi ko xam bi mën na téeméer fu mu nekk ñu ngi naan bële atote la du atote mais bii neen fexe ba xam lan la. d'accord mbirum awro bi dama cee am may. fu may daanalee mooy képp koo xam ne bëgg nga ma jërëjëf. soo ma bëggoon muñal te ñaanal ma yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.